mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz jaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñi di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca cees ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan looti nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moo a ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz jaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. dañoo xëy gis euh, journal éveil ni daal éveil journal la ci réew mi muy poser ay question ni mbaa la daloon Gàmbi du dal Sénégal mi ngi noonu indi na Baro nii la ko titre indi Baro ak Jomaay mu ni yaayaa dafa jëloon yenn ci opposant yu bari tëjoon leen ñeen ñi mu exile leen comme li ngay gis ci Sénégal ñu bari gi daw nañ génn réew mi ñenn ñi tëj nañ leen mm. mu ni baa la daloon Gàmbi du ñu dal ñu xëy dajeeg président boo xam ne peut-être fooguñu ko woon ci suñu àddina mais loolu bi moom lu muy wax noonu journal bi moom xanaa xanaa xanaa du xool bu fekkee ne kay maam ñii tey ji nee na éliminer li ñu jàppoon ñoo yor réew mi réew mi moom ñëpp a ko war a mën a yor ku ko yor na ko dina ko doxal si ni ñu ko bëggee rek ak ku mën a doon baax na tey ji bu nee ñii ni ñu ko yor ab sàmmkat jóge fee ñëw yor ko mbay mi dana dox sàmm gi dana dox napp gi dana dox te loolu yorum réew kon buñ ni ñii rek ñoo ñu war a jiite loolu dafay war a jóge politiciens yi doog ñoo ñu war a jiite dafay war a jóge benn waaye war naa mën a war defee ñëw jiite réew mi aadama borom mi mi ngi ñëw yor réew ma ma ngay doxal lam man mhm. bu demee keneen ñëw doxal kon daa journal bi wax dëgg yàlla li muy wax ni moom sa jamaatama opposé hmm. mhm. li muy comparé daal c'est comparable c'est comparable ok lii lépp waa Yaan Amar nga ko may waa Yaan Amar kese ñoom laa ko may alaaji noo gisee éveil fi mu génn euh, moom ngi ñuy xalaatal la doon gàmm bi daal maanaam ab président boo xam ni peut-être kenn ci sénégalais xalaatu ko woon bi ñu sukkandikoo ci li muy wax. waa moom de li mu wax man li ma ci gis boo gisee li mu def. Hmm. moo lay wan ne la day wane ne ginnaaw Ousmane Sonko moom kenn baaxut Pastef moom Pastef lay waxal waxut ak. Euh, hmm. kii hmm. parce que le fait que mu jël Bassirou Diomaye Faye di numéro 2. teg ko donc parti bii lay waxal. parti bi waaw. parti bi lay attaqué parce que waxut ak leneen parce que tey dafa waroon a jël Khalifa Sall teg jël Malick Gakou teg jël ñii teg ñu xam ni. ah lay waxal. waaw ba par parti Pastef lay waxal. ah oui waxut ak Basirou kese parti bi lay waxal. yaa ngi dégg. donc dafa bëgg a wane ne xam nga Adama Barrow mi xaw ma trésorier la woon. trésorier parti. ok kii numéro 2 la. Hmm. xam na ni comparaison bi muy def ne comparaison n'est pas raison. comparaison. comprendre nga. mais dafa am yoo xamante ni bi moom la ñuy bëgg kii maanaam wan la ne la ginnaaw Ousmane kenn baaxut comme ni parti politique yi di doxee nga ginnaaw man kenn baaxut. parti bii nag doxee wuñ noonu parce que bi ñu ñëwee dañu la présenté sax cinq personnes yoo xamante ni bi jàpp nañ ni ku ci nekk war naa mën a doxal li Ousmane doon doxal comprendre nga. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li am. Mm-hmm. donc nañu bàyyi yenn yi nga xamante ni bi ñu ngi koy def. di làqatu ci mel ni kuy euh, jàngat te jàngatuñ waaw yaa ngi jéem a kase benn rythme boo xam ni gis nga ni vitesse bi muy daw c'est extraordinaire jommal na la nga bëgg a kase rythme bi waaw mais mënuñu kase rythme bi hmm. parce que le fait que ñu dañu dañu gis ni rythme bi ni mu gaawee diggante bi Ousmane Sonko ne Basirou hmm. ak ni nit ñi dawee wutali Basirou hmm. ñu bëgg a kase rythme boobu moo tax ñu daal dee jël Adama Baro te et dañu bëgg a comparer sax ñoom sax dañu bëgg a nasaxal liggéeyu Adama Baro. Hmm, hmm. ah non non te loolu Gambien yi ñoo koy jugé. waaw léegi léegi foofu moo ah, léegi ah. foofu. est-ce que journal bi xam nga wax dañoo tëj. ko waxee Ousmane Sonko la ñu tëj mi nga xam ne ndaw ñi amoon nañ ci moom yaakaar hmm. ci ñoom tëj parce que parti Ousmane Sonko rek lañ tëj ay nitam ñeneen ñu exilé leen léegi moom léegi léegi léegi mu ni foofu est-ce est-ce que du Sénégal la daloon Gambie mënoon naa daal Sénégal président boo xam ni kenn du xam fa muy jóge parce que Bassirou mi tey mi ngi ci kaso mais mais Fata bi nag fi jóge boobu nag dafa daamu Bassirou xam dañoo xam fu mu jóge dafa jaar fi Ousmane Sonko jaar hmm. nekk impôt jaar fi nga xamante ni fii tey troisième boo ko xoolee dangay gis ni troisième bu leer naññ la yaa ngi dégg hmm. c'est pas que ni Ousmane Sonko moo jiite Pastef moo ëpp ñëpp xam-xam. pourtant ay bu defoon ala une beneen photo dañ ñaan kon kii la ñuy joxoon non non bu defoon xalifa. du ko def. waa dañ ne kon dañ ñaan moom la ñuy du ko def. lu tax non du def xalifa jàppiwu ko xalifa xam nañ nekkul ci course bi. te boobaa na xam ne xalifa du benn waay sax. façon gu jàppale. Amadou façon gu jàppale Amadou Bala. Ah. ci beneen beneen beneen beneen forme. àngal ah, hmm. waaw ci sa gis-gis. non du question sama gis-gis mais c'est que xam nga président yi nit ñi nag ay njaacaar la. ñun xam nañ ñuy mais mais xanaa xamoon ne journal bi dafa dénoncé. parce que imagine mu ni non xaaral bu bu nee. rythme bi la bu nee jàpp bu nee jàpp nañu euh, ki nga xam ne peut-être dañoo amoon yaakaar ci moom tëj loolu da ko jox ñenn ñi ñu téye tëj opposition bi ñu ci bari. xam nga loolu mooy ñenn ñu exilé leen. mu ni la daloon ñëlee mbaa du ñu dal. loolu lépp caaxaan la. Hmm. Ousmane Sonko déglu ma ñii waxuñu ni dañ ne la projet lañ yor. Hmm. projet. Hmm. lan la waa Pastef di ah, wax si sa sa sa projet bi lan la waa Pastef di wax projet. waaw Ousmane Sonko da projet bi lu ndaw la ci. waaw yaa ngi dégg. ku ne mën na koo doxal. ku ne mën na koo doxal. yow mi sax mën nga ko doon. non man bokkuma ci nekkuma ci kiiwu projet bi quoi. mais am na ñoo. xamante mais Sénégal mën nañoo xëy tey fi mu doon yàlla nattoo ñu la. yàlla mënuñoo loolu la journal bi wax tey ko mën naa ngaa koy journal bi li muy wax nii mais journal li wax mooy yow mii wala asa mën naa koy ñi waaxu jëm kii nee mu joxoñ baaxul Basiru journal Basiru la joxoñ xam nga journal bi kan moo waroon a lan moo waroon nekk in bi bu fekkoon ne journal bu neutre la. dafa waroon ne tay photo Amadou Baro ne mbaadu li daloon teg Yaya jàmme ne mbaadu li daloon Gàmbi du ñu dal. point bu boobaa di nga xam ni journal la boo xamante ni li mu def. dafa liggéey tranquille mais bu fekkee dafa jël photo benn leaderu parti fi mu toll nii muy Bassirou Diomaye Faye parce que bi ñu ko joxoñee ba dëgg dëgg moom la. daal ne mbaadu li daloon Gàmbi bi ñu dal. sàngan loolu kañ lu muy joxoñ mooy kii baaxul. Ah. amut leneen. d'accord. beneen <laughs> jàngat amu fa lu dul nekk kii baaxut. yomb naa jàngat. d' accord euh, kii euh, Ablaye Diallo Thiam solidaire Thiam soldat nee na wax leen ci pur pur ñu ngi leen di ñaanal baax di ñaanal. si Moustapha Sy euh, di di di ñaanal kii seen kii bi nu mu tudd. kii ka mm, ñu ngi koy ñaanal baax gis nañ ko ci àll bi mi ngi root ak def noonu la ab leader da ngay wàcc. ci àll bi comme ni ñu gisoon Sonko mu yor peel bi di wàq ci ñax yi kee ma ngay dem di root ah Khalifa Sall ma nga ca ma nga ca saretu mbaam ya Assane bàyyil euh, yi ngay def ma nga ca saretu mbaam ya noonu la